gi mooy signature mooy tàmbali moo tax guddi gi dem na te dama doon barkeelu parce que sëriñ bi dafa waxoon ne nañ barkeelu ci si te siira boobu yëpp day dellu ci Cheikh Tidiane maanaam mbëkkee googu ñu am ci moom moo tax góor gi dañuy jàngal Cheikh Tidiane mbóotam wax naa la ne salaasiroo fi xaaba xëy mbóot mi dox mu ne waaye mu ne sama mbóot mi moo daw ci ñaari xaaba xaaf googu xaaful xidam la ak xaaful bakkaar gis nga boo jëlee xaaful xidam ak xaaful bakkaar jàngkati alquran ak Ousmane allazina allazina qaala lahum naas inna naasa qad jamaw lakum fasaarum imana wa qaalu hasbunallahu gis nga bagage baa ngoog gis nga boo compté xaraf yi ahmadu mooy ahmadu ahmadu boo ko compté boo koy saabee cinquante lay jo xaaf bii ba xaaf bii cinquante trois lii ci alquran boo demee da fekk ñu réglé na ko boobu Cheikh Tidiane nag boobu lu muy rëy rëy bàyyi mu ne maa dajale ñaari xaaf bi sama mbuut mee fay dox kon borom jamono kenn la mooy kii joxe mbir mooy xam la yàlla kenn ku nekk dafay dox moo tax borom jamono jooju nga xamante ne nii moo am méngoo jamonoom amul jamono jeneen benn jamono moo fi nekk kenn ci toog boobu la wax xutbu fardu jaame maanaam fardu jaame président Ablaye Wade mi fi nekkoon nekkatu bi i Sall moo fi nekk yaa ngi moom a am citoyen lambda ngeen amatul benn décision wala bu ko bëggee day laaj yoon loolu nekkul ci faydu faydu duwul na bàyyi daf fiy jógee doon citoyen lambda ci faydu déedéet loolu tamit dafay jar a jiw ci xam nañ koy topp nga topp yonente bi ne affaire bi wa wiraasam Cheikh Tidiane jël na ko wiraasa googu doxan na di dox Mawlana Cheikh ma jël na ko ñu laaj bàyyi ne ndax sa gannaaw dana am leneen lu lay yow jël sa mbóot mi bu ne déedéet man sama mbóot mi maa ko tas kenn ku nekk dafa am lu ma la see jox ndax da ngay des ak sa mbóot mi mu ne waaw damay des ak moom kii mbóot moomu di ko doxal dox boobu noonu ba ñu ci jot ñu jot ci li nga ba ñuy fadam fadami booba léegi moo tax bàyyi jooru bi di dund ak nit ñi di da ngay toog ak moom sax benn tax rek mu def ci yow feebar boo xam ne da ngay rek mat su la yàlla dimbalewul da ngay am problème kon moo tax mootam Cheikh Tidiane bi mu wàccee ci Cheikh Ibrahim mu ne xutbul farid la kon nag dañoo war a calculer xutbu boobu waxoon naa ko ci benn jotaay ne pour nga mën a def calcul boobu pour nga mën a dox sa séeréer ci yàlla ba ne tënku ci ay mbiri nit ba ne tënku mbiri nit boo ci tënkoo da ngay tardé parce que dafa am fu ñu lay tënk foo xam ne boo fa demee da ngay sonn de. da ngay sa xol bi tënk ko ci yàlla booy bëgg bëggal yàlla booy óolu óolul yàlla booy yaakaar yaakaaral yàlla booy doyloo doyloo yàlla booy bëgg bëggal yàlla leneen lu ko mooy nay kóllëre ci yàlla nay maslaaxa ci yàlla nañ ànd dem ci yàlla nañ bokk bëgg yàlla li nga bëgg naa ko bëgg teg ma fi mën a teg ñu ànd dox dem waaye ne ma lii la te mu doon dama xam lim doon dama naan ko ñëpp lum doon topp lim doon mbir mi lim doon la ñu bàyyi dund bi tey wan bàyyi dund bi tey waaye dëgg-dëgg xam-xam bu rëy bi mu feesee moo ñu xam loo bañ ximmee moom la ñuy gis xam-xam bi sol na la ba nga fees nga xam ba nga ximmee boo gis ko mu ne la mu nga mel ne ko yow soo bëggee muus ki nga fii la koy joxoñ ngay xool pour nga xam fi mu lay joxoñ moo tax foog ñu bëgg bàyyi bi tey foog ñuy njukkal ñuy wax jërëjëfee bàyyi bi waaye ca maqaama ca maqaama ba ko moo tax foog ñu xam awtaat yaag afdal yaag nujabaa u yaag nuqabaa u yaag nangam saalihina yaag nangam ak nangam lépp ñu ko am na koo xam ne liñ la xanaa xam nga dox bi dafay doxee noonu kii bu dee roogi dañ koy rotti bàyyi dund bi léegi sëriñ bi wax na ko moom loolu moo ma juróom-ñaari at maa laaj Abdoulaye moo ko wax ne bu ngeen ma suulee ba ma am juróom-ñaari at ci suuf di ngeen di xam maay kan bàyyi dund bi dafa gannaaw de ñoo tàng nii rek parce que li ñàkk dafa rëy ci zaahir waaye billaahi wallaahi koo fëgg ci ñun ci xolam billaahi lazi laa ilaaha illaa ñàkkul dara ndax ki ñàkk mooy ko am sëriñ buy dee kenn gën te ñàkk bopp sëriñ bi fexe ba yow deew nga ray ko sëriñ bi la dimbale ba yow doo dee ba nga ñemee taxaw ne man duma dee yow nga d'accord ne dee la yow yaa dof ki ñàkk bopp mooy am sëriñ buy dee ñun bàyyi duudu deewul mukk mu dem ñun ñu ngi koy dund balaa ñu koo xam nañ dem ba ci kanam bu demee ba ci kanam rek la bàyyi ne su waxoon yéen ñuy dëkkale suma bàyyi ak seen bàyyi indil leen ma seen meññeeti bàyyi maay bàyyi duudu maay diw kii na maay lii maay jili yow yëpp baax na indil meññeet moo defar moo xam ne bu taxawee kàddu lu dëgg ñu ne duwut ay wax duwut ay noonu defaral bàyyi duudu daf ne boo ko bëggee mel ni man defar naa la fexee la defar ni ma la defaree nga defar koo xam ne bu taxawee kàddu ñu ne duudoo wax mu ne loolu mooy xam-xam mu ne moom dafa lay xamal nga xam nga xamal keneen mu xam koo ko xamal keneen koo xam ka nga xamal moo xamal keneen koo xam su boobaa mu a ca la door a amee xam-xam kon suñu bëggee tagg Baay Dudu ci xam-xam nañ fexe li ñu xamal ñu xam ko xamal ko ñi ñu koy xamal te a tañ nangu ñooñu nit ñu xam la ko tañ nangul leen seen maqaam su boobaa day tax mbir muy yokk di xam-xam bi wéy waaye boo ko tënkee du dem te du tere bu dem mbir mi dafay def ilal amal hmm. dundoo ci kii billaahi wallaahi dafay def Baay Dudu boo gisee ñu am moo bi raw defal nga ñu ngi nii ñun ñii ñun xam nañ suñu bopp bu duutoon ak bàyyi duudu billaahi suñ ko koy danañ ko fëx ñun ut fuñ départ aw moo ñu dimbale am na koo xam ne boo ko loo woon turam ci alquran mën na koo bind ne bu waxee nga ne bokkal alquran xamoo lu tax dañoo ànd ak góor boo xam ne boo ci alquran daf koy yox ci benn temps da ngay ñëw mu d'accord loof la ko su la yàlla jubalewul sax nga ne sa góor góor bu bokk la fekk defoo dara li tax man bu géer boobu bàyyi ga seede nañ ko bëgg gi bëgg bàyyi bu tey damay fàttali ko maa ngi gis ñoom bàyyi maa ngi gis sëriñ bi